إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال تعالى قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال أيضا وأنبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وقال أيضا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا لا إله إلا هو إليه المصير ñu ngi sant suñu borom doomu ndey ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey salmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam ci sunaam bis benc ñuy feddale di ñaax suñu bopp di leen ñaax ñu takkoo ragal yàlla ci fu ñu munti nekk dañu xam ne ci ragal yàlla boobu la ñu mun a amee teranga àdduna ak àllaaxira doomu ndey yi mbokk jullit ñi tey suñu xutba tey dafay doxantu ab xéewal boo xam ne yàlla xéewalee lañu ko mu gën koo feddale ci weer bi ñu nekk muy weeru koor muy que ne yàlla daf ñoo xéewalee di ñu jéggal suñuy bàkkaar man dama yéemu comme ku ci nekk ni muy yéemoo des fois boo gisee ñu ne la limu saxaaba yi ñu lay limal saxaaba yi ñëw ba ci kenn wax la histoire am nga ne kii de moom laa doon wër kii moom a yéem noonu la nekkee ci ay alxuraan ñu lay jàngal ay aaya ba ñëw ba ci benn aaya nga ne aaya bii moom a yéem waaye noonu la nekkee tam ci turu yàlla yi ba nga ñëw ci yenn turu yàlla yi nga ne turu bii de moom moom a yéem man mii de taxaw fii di wax tur bi ma gën a yéem wala tur yi ma gën a yéem ci turu yàlla yi mooy juróomi tur yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk li ñuy firi waaye yàlla jël ko tawwi ko yaatal ko ba nga xam ne boo ci déggee benn bi sax da ngay yaakaar ne bii moom moo gën a foor borom morom bi juróomi tur yooyu ñu koy dégg ci turu yàlla yi nga xam ne moom mooy génnee li nga xam ne mooy melokaanu borom bi subhaanahu wa taala bu ci njëkk bi nekk alxafiiru bi ci topp nekk al xafuur bi ci topp nekk bi ci topp nekk al xaafir maanaam al xafiiru al xafuur al xaafir waaye mu nekk tamit ci turam yi at tawaab waaye nekk ci turam yi tamit li nga xam ne mooy alxafu juróomi tur yëpp lu muy firi moom mooy jéggalaakoon bi waaye bu ci nekk dafa am taxawaay boo xamante ne ci xeetu jéggali la waaye beneen du ci moroomam ñu dugg ci alxuraan yàlla indi ay aaya alxuraan yu bari yoo xamante ne su ko nit ki di dégg boo moytul mu dem sax bay naagu ci def bàkkaar ndax taxawaay bi yàlla taxaw ci bëgg ñoo jéggal moo tax dañuy faral di wax ne ku fi bàyyi borom bii di yàlla pour beneen borom looloo dal yaa ko yóbbee sa bopp waaye heureusement bi ñu xamee ne yàlla mooy suñu borom ñu boroomoo ko ndax moom rek moom moo yeyoo ñu jàppee ko borom ndax lii mu mën ci ñun moom rek ku mën keneen ci ñun mënu ko xooleen aaya bi njëkk bi ñu jàng yàlla mu ne qul yaa ibaadi ne yow yonent bi waxal sama jaami allazina asrafu ala anfusihim ñoom dañoo ëppal ëppal ci ay bàkkaar ëppal ci tooñ seen bopp yow yu baax yi sax dañ la tere bu ko ëppal yu baax yi soo ko ëppalee mën na la jural ay bàkkaar mën na la jural sax duma ëllëg xoolal lekk ak naan pourtant lekk dagan na de naan dagan na waaye lu la yàlla wax kulu washrabu wala tusrifu lekkal naanal waaye bul ëppal bul yàq xoolal yu baax yi lañ la ne bul ëppal waaye nit ki moom dafay dem ba day ëppal ci ay bàkkaar yàlla moo ñu gën a xam ne yonent bi waxal sama jaam yi nga xam ne dañoo ëppal ci ay bàkkaar laa taqanatu min rahmatillah bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu xaddi bu ñu désespéré bu ñu dem ba yaakaar ne bàkkaar bi rëy na wala bëri na bëri ba yàlla dootuma baal déedéet bu ñu def loolu nañu xam ne yàlla moom mooy ki nga xamante ne moom mooy yaxfiru zunuba jamian inna allaha yaxfiru zunuba jamian yàlla mooy jéggale mbooleem bàkkaar ba pare moom mooy ki nga xamante ne mooy jéggalaakoon bi waaye mooy ki nga xam ne mooy yërëmaakoon bi aaya bi dafa dal xel dafa dalal suñu xel ñun ñëpp doomu aadama bi léeg-léeg day bàkkaara bàkkaara bàkkaara bàkkaara bàkkaar ba waaye yàlla nee na mu ngi koy xaar pour jéggal ko ak lu bàkkaar bi toll nag ak lu bàkkaar bi toll yàlla mu ngi lay xaar pour jéggal la moo xam ne nekk ay montagne montagne yàlla mu ngi lay xaar pour jéggal la kon lan la ñuy xaar pour jéggalu borom bi subhaanahu wa taala doomu ndeyu mbokk jullit ñi nañu fexe di bàyyi xel borom bi subhaanahu wa taala di bàyyi xel jamono bi nga xamante ne ñu ngi dellu ci moom di bàyyi xel mbugal bi nga xamante ne yàlla mu ngi ñu koy xaar te dara yóbbeewu ko dul suñuy bàkkaar nañuy bàyyi xel ci aay yi yàlla dalalee suñu xel ba ñuy jéggalu si li nga xam ne moom mooy suñu bàkkaar bàkkaar yi bu toll ni woon ay montagne ndax yoon saa salaam jox nañu misaal yu bëri waaye joo xam ne dafa bàkkaara bàkkaara bàkkaar ba bi mu ñëwee ci kanamu yàlla am na huit téere huit téere yoo xamante ne benn boo ci teg tolluwaayam toll na ne asamaan ak suuf mu am ci huit ci ay jëf rek yu mu doon jëf ndax malaaka yi moom dañuy bind rek ñun suñu fan yu gàtt yi xëy na mënuñu ko waaye jamono yi nga xam ne dañ doon dund ay mille ans wala mille ak lu topp xëy na ñoom daan nañu am loolu waaye kii huit téere la am ci huit téere yi biñ ñëwee teg ko ci kanamu yàlla amul dara lu ci waaj jëf lu baax dara lu baax waaj jëfu ko ci inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla moom moom mooy ki nga xam ne moo xam li nëbbu ak li feeñ aalimul xayb wa shahaada malaaka yi ñëw sëppal ko téere ne ko seet nañu ulbati nañu def nañu ñu nekk waaye sa jaam bi moom amul dara lu ñu gis ci moom lu mu def lu baax yàlla ne dem leen xoolaat ñu defaat la même chose ñëwaat la même chose ba muy ñett yoon yàlla moo xoolal boppam fi mbir mi nekk mu ubbi im benn baat boo xam ne waa ji waxoon na ko muy laa ilaha illa allah boo xam ne dëggu woon na ci moom yàlla jël baat boobu teg ko ci balance jël huit livres yëpp teg ci balance baat boobu daane li nga xam ne mooy huit livres yàlla dugal ko àjjana ku dégg wax bi tam nga naagu ci ay bàkkaar allahu akbar xoola tey jii waa ji di rey di rey di rey raya raya rey ba rey quatre-vingt-dix-neuf nit ñëw fekk benn borom xam-xam ne ko damaa bëgg tuub borom xam-xam bi ne ko lan benn rek boo ko boo ko defee rey nga àdduna bi yëpp rey nga aadama ba ci ku mujj nga naan tuub waaye désespéré ne ko comme noonu la demee te mënumaa tuub xaaral ma sànceemal la benn yoon rek yàlla daal di koy sànceemal waa ji daal di koy sànceemal te yaakaar naa ñun ñuy toog fii yëpp amul sax koo xam ne xëy na rey na fi nit ci sama yaakaar sama njort bu rafet bay rey ay quatre-vingt-dix-neuf bay yegg cent ndax des fois nga gis nag ay borom xam-xam yoo xam dañoo soxor. wala boroom xam-xam yoo xam ne seen dégg fiq dafa des xoola yàlla aaya bii ñu jàng léegi inna allaha yaxfiru zunuba jami'an nit ki ñëw ci yow ne la dama bëgg tuub nga ne ko déedéet te yàlla nekk ki nga xam ne moom mooy jéggale bàkkaar yi waaye looloo ko yóbbee waaje far sànceemal ko mais doomu aadama bu fekkente ne bëgg yàlla ak topp yàlla dafa tàkk sa yaram doo désespéré loo gis loo désespéré désespéré désespéré boo toogee ba ci kanam dina am lu la taalaat nga jugaat waa ji looloo ko animé waat mu jugaat dem xoole waat beneen borom xam-xam wax ko fi mu jaar ak nombre de nit yu mu rey mu ne ko dama bëgg tuub waa ji ne ko ane lan mooy dox sa digganteeg tuub sa digganteeg sa borom loolu mooy amul jaam bi ak digganteem ak borom amul luy dox si digganteem ak moom bu bëggee tuub ndax aaya bii yàlla wax ni inna allaha yaxfiru zunuba jamian mu ne ko waaye li nga def nag il faut nga def leen ndax dëkk bi nga nekk nit ñi fa nekk dañoo bon te duñ la encouragé si tuub bi nga def te amaana mun nga ci delluwaat si seen si seen i jëfin seen diggante kon da ngay jóge ci dëkk bi nga nekk dem beneen dëkk waa ji dégg ndigal def loolu ak ay bagaasam fas yéene gàddaay bu mu génnee di dem ba si yoon bi rek dee dikkal ko malaaka yi nga xamante ne ñoo yóbbu nit ñi safara fàq daw malaaka yi nga xam ne ñoo yóbbu nit ajana fàq daw ñu daje xëccoo bi metti fa lool yàlla yónne beneen malaaka boo xam ne mooy ñëw pour àtte leen ci ban loi la yàlla teg parce que yàlla mooy teg loi yu ko neex ne ko boo demee àtte leen ci loi bi nga xam ne mooy waa ji fi mu jóge ak fi mu jëm fan moo gën a jege bu fekkente ne fi mu jóge moo gën a jege safara la jëm bu fekkente ne fi mu jëm moo gën a jege mooy fi mu jëm pour tu pour tuub moo gën a jege àjjana la jëm waaye ci biir loolu xool leen yërmande bi yàlla di laxasaayee toujours saa bu ne bu nee jéggale rek laxasaayee na ko yërmande ci yërmande boobu mu ko laxasee lu mu wax suuf si la jox ndigal mu ne yow suuf si na nga gën a tàlleeku jox ndigal fi waaju jóge na nga gën a tàlleeku jox ndigal suuf si fu mu jëm na nga gën a wàññeeku ba nga xam ne malaaka yi bu ñu ñëwee nat lu mel ne cinquante cinquante lu ci yokk lu ñu tuddee chibre bu ñu nee chibre mooy lii lii de moo yokk am différence ci par rapport ak fi mu ju fi mu jëm ak par rapport fi mu juge fi mu jëm moo gën a gàtt fi mu jëm fi mu juge moo gën a moo gën a gudd ci cinquante maanaam plus chibre boobu yàlla ne àjjana la jëm allahu akbar doomu ndey yi fan lañu toll est-ce que toll nañ ci bàkkaar ci gaa yi wallahi yaakaar naa fii kenn tollu fi bàkkaar foofu kon lu ñuy xaar lan la ñuy xaar pour jéggalu yàlla suñu bàkkaar yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu yàlla xiir ci boppam aquli qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain waafiri zambi qaabili tawli shadidi liqaab zi tawl la ilaha illa huwa ilayhi almasir nabi ibaadi anni ana gafuru rahim wa anna azabi huwa alazabu alalim doomu ndey mbokk jullit ñi suñu boroom dafa bëgg diñu jéggal moo tax alxuraan boo ko parcourir dañoo sélectionné rek waaye wallahi ay yi fi nekk yàlla dalal suñu xel ci moom mooy jéggale bëri na bëri na lool ñu tànnaat rek bu mel ne bii yàlla di wax xaafiri zamb moom de moom mooy ki nga xamante ne moom mooy kiy jéggale bàkkaar yi xaabili taw bi mooy ki nangu tuubi waaye shadidul iqaab moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki tar li nga xam ne moom mooy mbugal ñu ngi seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ku dul moom yàlla te ci moom la ñuy dellu aaya bi ki ñuy wax Umar bun Xataab ñun ñëpp xam nañ ko moo nekk ñaareelu xalif dafa amoon benn xarit xarit boo xam ne daf ko bëggoon lool waaye ñu toog ay diir gisu ko benn jour kenn ku voyagé jóge fi xarit bi nekkoon ñëw seet si ko Médine mu laajte ko an sa xarit an sama xarit bi mu ne ko sa xarit bi de léegi boo gisee doo ko xàmmee kanam gi de mu ngi mel noo xam ne fuuti na ndax naanum sàngara gu metti waaye xoolu Umar nu mu déggee fiq ak yéene gi mu yéene xaritam bi te xam ne yàlla dina ko jéggal su tuubee mu ne ko booy ñibbi naa la yëg jox la yóbbal boobu yóbbu la sama xarit bi bi waajir di ñibbi ñëw ne ko maa ngi ñibbi Umar bun Xataab daa di bind benn lettre lettre bu gàtt mooy aay bi ñu jàng léegi xaafiri zam qaabili taw shadidil iqaab baat yu gàtt mu lem feuille bi jox ko ne ko soo demee joxal ma ko waa ji dafa ubbi lettre bi gis baat yi daal di lu mu njëkk a wax ne sama xarit bi de daf ma yéene tuub sama xarit bi de daf ma yéene yàlla jéggal ma bés ni ki tey bàyyi naa naan sàngara bi allahu akbar lu ñuy jàng fii mooy ndekete wootekat bi jaru sax muy wax lu bëri na nekk xayrul kalaam rek wax bu gàtt waaye tey tegtale mu jóge ci xol wallahi yow miy wax say wax bu jógee ci xol nga yéene ki ngay waxal su yeggee dafay fekk xol bu ubbeeku maanaam ci xol lay jóge dem ci xol loolu moo leen dal ñoom ñaar seen diggante yàlla mu ñuy waxaat ba léegi ci alquran na bi ibaadi anni ana alxafuru rahim xibaaral sama jaam bi te ne man mii de maay ki nga xamante ne maay kiy jéggalaakoon bi waaye man maay ki nga xamante ne maay kiy yërëme xool leen moo bi yàlla utilisé bu aaya bi njëkk bi ñu jàng ci commencement xutba bi lu mu wax qul qul yaa ibaadi yi bi mu ne nab bi mu mel ne yàlla daf ñoo gën a yëx yéene moom moo ñu gën a bëgg sax pour jéggalu ñu pour jéggalu ñun ñi nga xam ne ay tooñkat lañ mu ne yonte bi xibaar leen informer leen na message bi jàll nga xam ne bu kenn ñëw fii ci man ne xamuñu woon ne yàlla mooy kiy jéggale kon kii bëgg nañoo jéggal tey ñu ngi jëm ci guddi gu màgg ñu ngi ci weer tam weer bu màgg muy weeru koor di weeru jéggale doomu ndey yi léeg-léeg nga dégg boroom xam-xam yi ñenn ñi naan fukki fan yu njëkk yi fukki fan yu si digg bi déedéet demeewul noonu de weer bi bi mu tàmbalee ba fi muy jeexee ñett yi lay lay boole xaajuñu ko du fukki fan yi mooy yërmande fukki fan yi jéggale fukki fan yi goreel safara déedéet premier jour ba ba si mujj yépp bésu jéggale la premier jour ba si mujj bi yépp yërmande la premier jour ba si mujj bi yépp goreel safara la depuis bu weer bi teroo ba léegi chaque jour yàlla mu ngi repêché ay nit yu waroon dem safara dinañ yóbbu àjjana amul fukki fan yu mujj yi déedéet bi mu tàmbalee ba léegi noonu la ñuy déggee xadis bi waaye kenn xaajul weer bi te fukki yi mooy yi fukki yi mooy déedéet ñu jëm ci guddi boo xam ne guddi bu màgg la muy laylatul qadr ak liñ ci wax yëpp biñ ñëwee suñu yaay Aïcha ne ko guddi gii de buñ ko demee ba fekkee ko bañ wóor na ne guddi bii guddi bi la ban ñaan la ñu war a ñaan xoola yaay Aïcha ñaan ñaan bi mu bi mu wax ne yonent bi ñaan bii la jàngale allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anna ñun ñëpp wala fa'fu anni man mi miy wax waxoon nañ si turi juróomi turi yàlla moom mooy al afu nga ne ko allahuma innaka yow yàlla afuwun yow yaay ki nga xamante ne fii xoola afuwun afuwun du comme jéggal kese rek yam ci de waaye day jéggal fomp bàkkaar bi fomp lay firi fomp bàkkaar al afu yow de yàlla yaay kiy fomp bàkkaar bi xam nga léeg-léeg mën nga jéggal nit ki li mu la def muy marqué di la marqué saa boo ko xoolee xool ko waaye jéggal nga ko loolu mën na nekk alxafaar wala xaafir waaye al afu mooy firi moom da koy fomp nga xam ne nekkatu fi tey bu ma ñëwoon léegi bind si miir bi tooñ borom borom borom kër gi yàq peinture am bu ma ko nee baal ma te dindiwu mook saa bu rombee xool baal na ma waaye day gis peinture bi waaye bu jëlee même couleur bi muur li nga xam ne kii ndax dina ko gisati loolu mooy alxafu ñu tànnal ñu ko ci guddi bi gën a màgg ci guddi yi mooy guddi laylatul xadar yàlla bëgg nañoo jéggal doomu ndey mbokk jullit ñi yàlla boo demee si suuratul furqaan mu ngi dajale foofu mboolem bàkkaar yi gën a bon rey nit te tey ko bokkaale yàlla njaaloo yàlla mu ne képp koo xam ne def na ko dinaa la mbugal mbugal bu tar dama koy sax doublé waaye lu mu ci teg illaa man taaba ba mu des koo xam ne tuub na wa amana wa amila amalan saalihan mu tuub gëm yàlla sax ci jëf ju rafet yàlla neen du ma yam sax ci baal ko kese yubaddilullahu sayyi'aatihim xasanat allahu akbar yàlla mu ne damay ëlbati yu ñaaw yooyu mu doon def def ko ay tuyaa ba far parce que lan moo ko may mooy dafa tuub doomu ndeyu mbokk jullit ñi allahu akbar suñu borom subhanahu wa taala bëgg nañu yërëm nañu yéene nañu àjjanaam bii ngal la waaye buñ ko xañ suñu bopp wax yi nag bu mu neex a neex a neex ba nit ki ne déedéet naa bàkkaar lu ma neex tolloogu ma fu ma reyee cent personnes su ma ko jekkoo tuub xëy na bàkkaar yàlla moo koy jéggale waaye dafay def effet fii sa dund àdduna doomu ndey yi bàkkaar day def effet fii sa dund nit ki dina topp ay bàkkaar topp ay mooy yàlla ay njaaloof lu mu yóotu du ko jot day dem ba wërsëg bi nekk ni suuf tànk nga xam ne sëgg for ko moo ci des du ko du ko mën a sëgg for dëkk bu mu bugg dem jib du du yegg day saxaar nga ko gis ni mais du tàkk jamais nax lan ay bàkkaar bàkkaar dina dem dina dem dina dem dina dem ba rab yi sax dañuy moolu si suñuy bàkkaar nga xam ne benn picc boo gis ñu ngi ko tëj sax ci biir kaaf muy moolu doomu aadama seen bàkkaar ngir yàlla taw bi mu téye ñun ñëpp xam nañ ne bàkkaar bëri day téye taw bàkkaar boo xam ne ñi koy def sax boo moytul ñëpp lay maas ba ñu ne nañu génn ci biti ëlbati suñuy yére ñaan yàlla tuub ngir taw bi ñëw lan moo ñu ko yóbbee ay bàkkaar yu bëri kon topp ay bàkkaar dafay def li nga xamante ne mooy effet nit ki dina topp ay bàkkaar ba leeram bi nekkoon diggante moom boromam fay nga xam ne dootu am temps wu tuub day fàtte sax luy tuub ba dee ñëw moo tax yàlla bi mu waxee yoon sallallahu alayhi wasallam xibaaral sama jaam yi que man maay kiy jéggale waaye lu mu ci teg sama mbugal bii mbugal bu la boo xam ne mbugal bu tar kon nañu moytu sori mbugal bi nga xamante ne mu ngi ñuy xaar ci di jéggalu suñuy bàkkaar doomu ndey yi mbokk jullit ñi fi ñuy jeexalee moom mooy waman yaxfiru zunuba illa allah amul kenn kuy jéggale bàkkaar ku dul borom bi subhanahu wa taala kan mooy ki mucc mooy ki nga xamante ne saa bu defee bàkkaar zakarullah xelam dafay dem ci yàlla fastaxfaru li zunubihim yàlla daal di koy jéggal li nga xam ne mooy ay bàkkaaram doomu ndey boo ko jullit ni maa ngi dénk sama bopp di leen dénk weer bi nañ ko jàppee suñu weeru koor bu mujj ndax ñu mun koo rafetal xutba bi passé jàngale woon nañu yar bakken ci wa shamsi wa duhaaha tey ñu ñëw wax waxu bàkkaar nga xamante ne seytaane ci suñu bakken lay jaar duñu bàkkaarloo waaye ñu fekk fi yàlla bi nga xamante ne moom mooy ki ñuy jéggal kon ngallawaay nañu sax di jaamu yàlla nañu sax di topp yàlla bañ ko bokkaale ak dara waaye nañu sori li nga xamante ne mooy seytaane ndax suñu noonu la allahuma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anna allahuma innaka afuwun karimun tuhibul afwa fa'fu anna rabbana ighfir lana zunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin qumu ila salatikum yarhamukumullah